اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق با با سين ميم ألف لام لام هو est-ce que est-ce que alhamdulilah alhamdulilah Mbacke alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah mu nekk ndorteelu njàngale mu nga xamante ni xalif général di Mouride moo ko door mu nekk nag lu nga xamante ni taalibi Mouride yi rafetlu nañu ko bu baax a baax njiitu mi président Macky Sall nag ñëw teewe bés bi am ci mbégte bu baax a baax.